asalaamaaleykum tout d'abord maa ngi leen di jërëm di leen sant bu baax a yéen euh, presse bi taxaw fii ci wàllu liggéey bi ñu liggéey pour réew mi ndax képp ku xam na ne képp ku nekk Sénégalais rek amatuloo jàmm ndax virus boo xam ne dugg na ci réew mi ñun ancien gloire ancien lutteur de la lutte sénégalaise am initiative bu ñu am pour lancer message suñu rakk yi suñu jarbaat pour ñu topp loolu la première chose mooy jël saabu di raxasu je pense que saabu mu ngi fii dañu def démonstration bi nu ñu war di raxasoo la santé wax na ko le président de la république wax na ko kon nag nun les lutteurs yaakaar naa ne li ngeen gëm muy safara yi ngeen di am di ko diwu pour daan mbër yaakaar naa ne jot na nag ngeen def consignes yi ñuy wax directives yi ñuy wax ngeen def ko pour ñu daan feebar bi ndax sëriñ su leen waxee ne su ngeen xëyee nga diwu safara bi foo xëy diwu ko su la waxee ne midi nga diwu bouteille bi foo jaar diwu ko donc aujourd'hui combat bu ñu am mooy combat yu sénégalais yëpp di def kon nag waru leen ci mudee mujjee da ngeen war a daan takku ñu daan virus bi Sénégal am jàmm ñu nekk ci jàmm yaakaar naa ne Covid bi Covid 19 bi ci ñëpp ci kër yi yëpp ñu ñoo ko mun a baat rawatina nag mbër yu ndaw yi mbër yu mag yi mbër yu renommé yi yëpp war ngeen def dara ci seen écurie lan ngeen war a def seen écurie sensibilisation bi jox leen yenn yoo xam ne yéen a ci nekk bopp bi ngeen jàppale leen la preuve étant donné di tey anciens lutteurs yi yoo xam ne seen nijaay lañu ñu mel comme assurance Malick Diop ñu mel comme Sitafa Thior Mohamed Ali ñoom Baye ñoom Juga Dia yéen ñëpp xam ngeen ko ñoom Bartine association des anciens lutteurs moo leen di offrir lii di ko remettre le président des écuries ak ménagère baabu boo xam ne ñun ñu ànd ak confectionner lii pour jox ko mbër kon nag gis ngeen ko Covid 19 stop dafa a stop ma wax leen ne nag masque bi képp ku nekk mbër képp ku nekkul mbër toute sa famille dafa war a sol masque balaa ngay def dara balaa ngay génn sa buntu kër nga takk masque loolu moo tax ñu investir yi am nañu plus de quatre 400 masques boo xam ne dañ ko jox école yi je vous remercie di sant nag anciennes lutteurs yi ñoo xam ne ñoo am initiative ma nekk seen président pour ñu def lii di santé le ministre des sports xam ne fu ñu mënta nekk ñu ngi koy accompagner ci vision am rawatina nag le CNG boo xam ne on est toujours en partenariat je vous remercie. di sant le de quartier de l'unité 24 loo xam ne képp ku nekk mbër képp ku nekk sportif lu muy def rek dugal na ci loxoom kon Birane lii les anciens lutteurs ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla ci sa taxawaay bi sa taxawaay bi rafet na. ndax fu ñu la fekk rek tu es merci beaucoup. Cette situation-là est arrivée dans le monde il se trouve être euh, cette pandémie il a eu à prendre certaines euh, mesures qui devraient normalement combattre un ennemi qui nous est tous dangereux. Donc, après les avoir remerciés, je remercie les anciens couloirs dirigés par Manga de qui aussi a compris qu'aujourd'hui, avec euh, ce qui se passe véritablement dans ce monde, il y a une, on peut véritablement euh, se prémunir de quelque chose qui pourra véritablement nous, nous aider. Nous aider et nous éviter véritablement d'être atteints par cette maladie. C'est-à-dire aujourd'hui, la première euh, chose préventive que nous devons avoir, c'est véritablement les masques. Portons les masques. mais portons les masques, mais dans un premier temps aussi, restons chez nous. Si aujourd'hui, c'est les anciens couloirs qui euh, appellent les populations à porter des masques, les populations véritablement à rester chez eux, dans un premier temps, on parle des lutteurs. Les lutteurs, que ce soit les lutteurs en activité, les anciens lutteurs et tout le monde, ce qu'on vous demande véritablement, c'est de rester chez vous. Vous pouvez faire vos entraînements, mais après, rentrez chez vous Euh, essayer le maximum possible en tant que porteur de voix d'aider véritablement euh, ceux avec qui vous habitez, c'est-à-dire les populations. Au niveau des jeunes lutteurs, euh, je peux dire que c'est à eux aujourd'hui, au niveau des quartiers, d'être les premières personnes qui doivent sensibiliser les populations. maa ngi leen di siyaar yéen ñëpp journaliste yi lu fi nit yëg rek yéen la yàgg leen fi téwér di nuyu sama président Manga yàqul dara baaw maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu président de écrui di nuyu ñëpp di nuyu Sénégal gépp di gërëm président te di ko yërëm ci yan bi mu yono parce que metti na sonn na nelawatul di di nuyuwaat sunu ministère sport Matar Ba di ñaan mu yàgg fi te wér jigéen di wuñu te lu mu mën a am làmb ko gënal ah di jooy lii nag suñu borom bi nga xam ne moom moo ko fi wàccee parce que àdduna wërngël képp la wër ñi tëdd ci lal yi tëdd ñuy doxal leen gën a feebar ndax xel yi dem nañ fit yi dem nañu njaboot gi tiit nañu rawati nag ñi ci àll bi lekk lekkuñu naanuñu te lu fi gën a yàgg gën a indi problème kon yàlla na fi gaaw a jóge ci màggu yàlla ak mbaaxam koor gi ñu bëgg um yàlla nañ ko umaale ak mu jóge fi ca àll ba koor gi jële ko fa ci àll ba ñu bañ te dégg luy coronavirus waxuma la nag waxuma la Sénégal mais àdduna wërngal këpp yàlla na fi jógee yàlla na fi yàlla jëlee maa ngi ñaan yàlla daal Sénégal yàlla na fi jàmm di am mbër yi aussi nañu góorlu ci ñi leen di topp parce que nit ki bu fekkee boo jógee ñëpp jóg waaye bala ngaa jóg bala ne ñun ñee jóg na nga fexe ba bu ñu jóg nañu jóg ci loo xam ne luy dal xel la luy kiir xel la lii Malick nga la bariwul mais bari na bu fekkoon benn écrit bu nekk na am benn nga jox ko ki nga xam ne mooy leader ba mu takk ko ba pare def jomam ci moom tam war naa mën a génne ci xaalisam jox ñu koy ëmb ak goxam loolu da leen a war buñ nekk ku rek di dugg te kenn du leen dugg mbër yi nañu leen takkal benn rek nga leen di jox écrit bu nekk benn école de lutte bu nekk benn jox ko tanor ba mu takk ko ña koy wër ak goxam ba mu nekk mu génn ci xaalisam jënd jox leen ko parce que da leen da leen da leen a war ginnaaw boo jógee ñëpp jóg am nañ 400 mais ginnaaw du matale ñëpp mbër mu ci jox ñaar bu ne ñaar lañ la jox da nga fexe ñaar yooyu na nga ko takk wane na takk naa ko ba pare ne ko gox bi takk ñi ànd ak man nañ ko takk ne ko écrit bi takk nañ am jom te jàpp ci xeex bi te te cee bokk loolu laa amoon lu may sànni wasalaam. Euh, salaamaaleykum mbooloo mi euh, ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp. di nuyu Manga 2 président des anciens gloires di nuyu Bassirou Babou président des ménagers di nuyu Malick Ning président des écrits et école de lutte di nuyu moo frère njuga di nuyu Mbaye Jacques suma xarit suma turandoo euh, je parle au nom de tous les entraîneurs di wax ne ñu ngi remercier Manga 2 ci initiative bi mu jël ànd ceeg ministre des sports di ci liggéey liggéey bu am solo ñuy wax ne lii Manga def dañ ko ciy féliciter di ko ñaanal Eh, te li mu ko santaane li ko tax a jug nañ ko pratiquer noonu parce que mooy dañ ne restez chez vous nañuy porter masque raxas loxo yeeg saabu pour nga xam ne dañuy mën a xeex feebar bi mu jël li di sensible nit ñi ñu war ko cee jàppale di ko ñaanal nag yan bi oyof ci moom bu baax a baax a baax a baax di lancer appel ndax euh, Manga su jugee ba def lii ñu ngi lancer appel yeneen autorités yi responsable yi ñëpp ñu jàppale Manga ci liggéey bi ba mu matale ñëpp parce que liñ ko jox da koo génne jël dolli ci te taxul mu mate kon ñu ngi tàllal ñëpp loxo ñu def ci seen participation Manga mën a àggale liggéey bi asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf. waaw salaamaaleykum euh, askanu làmb yëpp au nom di ministre des sports monsieur Matar Ba euh, maa ngi gërëm d'abord euh, di nuyu. Euh, le chef de quartier bi ñu fekk fii muy euh, El Hadji Birane Ly bi nga xam ni ancien foot gardien de but la woon international de football euh, di nuyu aussi Manga mi nga xam ni moom mooy le président de l' association des anciennes gloires di nuyu El Hadji bi nga xam ni moom mooy le président de l' association des ménagers di nuyu aussi Malick bi nga xam ni moom mooy le président des écuries di nuyu njuga di nuyu mbay Diallo suma turandoo di leen wax rek nekk initiative bi dañ koy rafetlu parce que bi ko Manga waxee le ministre des sports monsieur Matar Ba euh, bëggoon na ko teew trop tey mais xam ngeen ni tey dafa am benn euh, conseil de ministres moo tax mu yónni ma fi pour ma teewal ko fi euh, teewal bi nag mooy que le ministre xam na ni tey làmb askanu làmb muy les anciennes gloires muy bépp kuréel bu làmb mi ngi soutenir au moins ànd na ci élan de solidarité bi nga xam ne moom la chef de l'État lancé muy au moins pour combattre ou bien pour lutter contre le Covid 19 xam ngeen ni dafa nekk jàngoro joo xam ni dafa nekk di propagé wu. te ku wax askanu làmb wax communauté ba tax na maa initiative bi mu jël c'est une très belle initiative dans la mesure où on a remarqué ces temps-ci il y a cas communautaires te tey écuries yi dañu am proximité avec les communautés. maa ci xelam bu rafet moom ak ñoom Basirou baabu ci seen ay xel yu rafet ñu ne dañuy offrir à toutes les écuries de lutte. au moins des masques te xam nañ ne le port de masque est très obligatoire gis nañu l'arrêté qui a été sorti par le ministre de l'intérieur monsieur Aly Ngouille Ndiaye donc au nom du ministre des sports monsieur Ba maa ngi leen di delloo njëkkal di leen gërëm dégg naa nag euh, li ngeen ma yóbbante incha allah bu neexee yàlla ak yonte bu jógee conseil de ministres li may njëkk def mooy woo ko au moins wax ko seen doléance yi ngeen xam ni li ngeen wax maanaam soxla ngeen ay masques pour les écuries soxla ngeen ay jumtuwaay pour les pour la protection des écuries pour la protection en tout cas de toutes les composantes de la lutte comme que composantes de la lutte yi ñoom ñëpp ils ont contribué euh, pour au moins combattre le Covid 19 incha bu neexee yàlla ak yonte bi kilifa gi dinaa ko jottali seen yóbbante loolu laa doon am di leen gërëm di leen sant di nuyu aussi suma confrères yi parce que man journaliste laa aussi parce que j'ai fait plus de vingt ans de pratique journalistique donc sama lépp lu ñuy def tey. lépp que ce soit dans la sensibilisation que ce soit dans la lutte que ce soit dans la dans promotion que ce soit tout lépp les de tout processus lu baax tey ñoom la lu fi jekk tey ñoom la lu fi baax donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant te xam ni vraiment amuñu seen taxawaay au nom du ministre des sports aussi je vous remercie vraiment de en tout cas de la sensibilisation que vous êtes en de mener pour combattre cette propagation du virus du coronavirus je vous remercie. merci des écuries. ñun anciens lutteurs yi ñoo leen offrir yi pour ñu yokk écurie yi. d'accord je vous remercie. merci à vous.